رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى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 இருபத்தி debbo ñaana yo allah tawi buñ ko ñaanalee yàlla moom ñu ñaanal yàlla suñu réew Gambie ndax Gambie ak Sénégal benn réew seen jàmm jàmm kenn ku nekk ci ñoom rek jàmm ci def ñu ngi gërëm seen taxawaay di ñaan ba nga xam ne li jàngee di xaar ci moom ci lépp lu génn ci développé réew bi ak saxal jàmm yi nga xam ne tey ku xamutoon ngir jar jot na nga xam ko ndax gis nañu réew yi ñuy wër te ñàkk jàmm yi ñuy dox kon suñu réew yi ñuy Gambie Sénégal jàmm yi fi nekk yaa ngi koy am déggoo bi nga xam ne moo nekk ci diggante ñaari njiit ñaari réew yi loolu ci teewal la bu ñu yàlla ndax dafay gën a yombal dëkkin bi nga xam ne mënta ndax benn dëkk kon ñu ñaan yàlla saxal loolu def jàmm ci def ko ci Sénégal mooy def ko ci Afrique waaye def ko ci àddina bi yëpp ñu ngi ñaan yàlla delloowaat jàmm ba Palestine Gaza xale yi jigéen ñi ñu ngi loolu subaa ngoon ñu ñaan yàlla delloowaat jàmm jafe ne woon ba ku nekk mën a dund ci jàmm ñu ngi nuyu ممثل القطاع العربية نشكر حضوركم معنا في هذا الحفل البهيج مع هذه قبل بركات المغرب يعطونا معنا في كل ما نحن فيه نشكر هذا الحضور من الله تبارك وتعالى أن يحفظ المغرب قوة وشعبا ويحفظ ملك المغرب المفدى محمد السادس حفظه الله ونصره. نيني وقتال di nuyu Cheikh Alassane nga xam ne itteem ak fadloom waaye ci àndanteeg mbokki taalibe yi moo tax bés bi mën a amee nii ndax daana ko def ci jamono loo xam ne du dëpp suñu ñi ébale waaye bàyyi dafa wax ne taalibe bu dëggu xaataram du aju ci lu mënta ne ñaari firi la am saadatu laa yataallaq xaatiram bi maxduumi xaatiram du aju ci lu amut waaye xaatiram du aju ci lu dul yàlla xaatiram du aju ci lu mënta am lu mu aj xaatiram ba dëgg pour mu bëgg ko rek yàlla naa koy wax mu jaral leen ba ñu dina ñu des ñëpp di nga di di di wéwén sëñ wax na ci seen tur di nuyu góor ñi ak jigéen ni di leen jotal ni yi waa Médina yépp nga xam ne tudd nañ ni ànd ak yépp nga xam ne dëgg rek ñu ni ne dina teewee te ci jiitu ci loolu muy yaa Mouhamadou Mbaye bi ni xam ne maa ko toog ma ko yow yaa ngi naan ndax ci sukkuta la boobu tey yaa xale ko sukkuta ni sant yàlla dama laajoon dana sant lan xet kan nga am mu ne ñu ne amul jot waaye nga dégg ci waxam ne bëgg na wax ni bëgg na wax ni fay bëgg na wax ni suluk tasawuf kon dinañ waxtaan waxtaan boo xam ne dañ ko jaarale ci wàllu jublu yàlla tabaraka wa taala bi nga xam ne sufiyanke yi maqaama boobu nga xam ne ci la ñuy xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko firi ci xadis jibril boobu nga xam ne ñëpp jàng nañ ko lu bëri jàng nañ ba ko jibril ñëwee di laaj comme benn tukkikat saxaaba yi di wax ne fa ajibnaa lahu yasaluhum wa yusaddiqum mu ngi koy laaj ba pare te moom ñu koy laaj mu wax mu ne ko wax nga dëgg kon mel ni loolu laaj mu xam nga comme li mu laaj xam ne ko dafa bëggoon jàngatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buntu boobu saxaaba yi xam laaj na ko lan mooy lislaam mu wax ko mooy nga wax baati seede yi julli julli juróom koor weeru koor ak jege di yàlla joxe asal lan mooy imaan nga gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dee gëm gëm gëm safara gëm dogal yi yu neex yi ak yu yépp nga xam ne ci yàlla la mu laaj ko wax ma lan mooy ihsaan mu ne ko mooy ngay jaam yàlla mel ni yaa ngi koy gis wala ngay jaam yàlla mel ni mu ngay gis jooju maqaama boobu ci la sufiyanke yi di jeexal seen dund pour àgg ci maqaama jaam yàlla mel ni yaa ngi koy gis ndax boobu gën a màgg boo amul foofu nga àgg ci jàmm yàlla man ni ñu lay gis lii xaaja mar ubbee léegi jàmm yi waxi bàyyi lam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ayshu bi duuni xubbi fii que mu dayaru dëgg dëgg bàyyi dana yonent bi képp koo xam ne mu ngi dundul te dundam bi teg ci bëgg la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku dundam la sant mooy la ma ci téere mu njëkk man la ñuy ren maarifatu rahmaan amaaru daat lada azmaan ku xamut yàlla kooku dundam sànk na ci booleem nga jàpp Ibn Abbas ne mooy ngir nga xam te Ibrahima radiyallaahu anhu wax ne yàlla mel ni buur yi buur yi dañoo am ñetti catégorie lañ am ci seeni mbooloo mbooloo moo xam ne ñoo leen di liggéeyal ñooy dajale alal yi ndax réew mi mënta dem mooy alal am na mbooloo mi nga xam ne ñoo leen di toppatoo seen lekk seeni naan ak mbooloo bi nga xam ne nag mooy bu supérieur bi nga xam ne ñoom ñooy ay xaritam ñooy toggaale waayam ñoom lay wéttalikoo mu ne yàlla tabaaraka wa taala dàq na ñaari xaaj nit yi ci boppam ndox soxla woo wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun binduma jinneeg nit lu may ni ngir ñu jàmm maa uriidu minhum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuun bugguma ci suma jaam yi ñu wërsëgal comme ni ko yeneen buur yi buggee ñuy liggéey di dajale alal bëgguma ci ñoom ñi lexal ma ndax inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin yàlla mooy joxe wërsëg kon soxla mooy jox wërsëg mooy lexale mooy aji borom kàttan nga xam ne moom soxlawul lekk bàyyi mën a waaye bàyyi nag xaaj benn bi des li nga xam ne buur yi dañ koo am mooy ñi nga xam ne ñun dañuy toogaale di waxaale ñoom waaye boobu nag mooy jam yi nga xam ne mooy sette yi nga xam ne ci jaam yi safwa yi nga xam ne ñooy fi jaam yi ñi nga xam ne ñoom taxaw ci kanamam di ko sellalal ak jaam taxaw ci kanam yàlla di ko sellalal ak jaam loolu balaa jaam bee àgg ci dëgg-dëgg sellal foofu mu dem ಬಗೆಹರಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಚಗನ ನಾವು ಕುಕಮಲು ನೀಫಿರಿ ಬಚಗನ ನಾವು mooy yow sa soxla yi jeex na ci soxlaa bi sa bëgg-bëgg jeex na ci bëgg-bëgg bi sa jubluwaay jeex na ci jubluwaay yow Munggah amatoo munggah mënatoo moom nga amee moom nga xamee moom nga bëggee moom ngay defee moom ngay bàyyi bëgg àgg ci loolu rek moo sufiyanke yi sos seen yoon wi nga xam ne keréewuñ ko mu génn ci alquran keréewuñ ko mu génn ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax faw mu sukkandiku ci alquran sukkandiku ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sukkandiku ci ilhaam yi nga xam ne saalihin yaa ngi koy am mu jugee ci leer ak alquran ci leer ak mun jaar Muhammad sallallahu alayhi ñu am roykaay yu boroom xam-xam yoo xam ne dem nañ ba àgg ci topp àgg nañ ci jële ci xam-xam terew ñi yëg ne seen roxo ngi mar di jëm ci li nga xam ne moo dëppoo moom ni nga xamee ne sa yaram bi dafay xiif li dëppoo moom di mar li dëppoo moom noonu la sa roxo di xiifee ak maree fekk demul nag bañ gumbaloo ko mu réeree li mbëggul waaye roxo yëpp dëgg-dëgg yàlla dund rooxa yëpp tim ci seen njëlbeen xam nañ kuy seen borom ndax ba yàlla ne restu bi rabbikum te boobu ci aalamu arwaax lay waxe jaam yi ñoom ñëpp xaalu badaale lu réeral jaam bi nag doon demee bu dëkk yaram yi soxlaay jaam soxlaay yaram bakkan bi nga xam ne boo ko bàyyee topp ko ak ñaawtee bi nga xam ne boo koy topp mu lëndëmal sa xol ba dootul xàmmee lii dëgg kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanu yaksibuuna alquran wax ñi nga xam ne lan moo muur seen xol ba xàmmee tuñ dëgg ak nar ndax nit dana dem ba dootul xàmmee lu baax ak lu bon waaye xol dana xéwén ba dootul nangu dara lu may lu baax gëm yàlla mooy def ko mu dem ba nga xam ne luy jegee yàlla rek lay def walakin allah xababa ilaykum al-imaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wa wal-fusuqa wa wal asyan ulaika hum raashiduuna fadlan min allah jaam yi nga xam ne yàllaa ngi wax ne yàllaa leen dëggloo gëm yàlla rafetal gëm yàlla ak lépp lu jëm ci gëm yàlla rafetal ko ci sa xol bañ loo leen weddi yàlla bañ loo leen mooy yàlla yàlla ne ñooñu ñooy jaam yi xam ne ñooy jaam bi seen sufiyanke buy xam-xam boo xam ne xam-xamu jaamu yàlla شريعه عباده أكثر عمل جامع الصبر الجيف لانتي سمر بيا كوكو شريعه تصوف نكت خم خمي خلي xol bi soxla ñaar wéetal yàlla tabaaraka wa taala mooy dayo lu njëkk li sa xol bi soxla mooy sellal xol bi kon boo ne tasawuf ci xol lay itteewoo wala nga ne tasawuf yàlla lay itteewoo ñaari benn xol lay itteewoo ndax bu xol bi sellee mën a dékku lu jugee ci yàlla tabaaraka te dékku lu jugee ci yàlla loolu la xol bi soxla bi sallallahu alayhi wa ñoo xamal ne xol mën naa dem ba xam dëgg xam boo xam ne fitna dootut ko lool mën naa réeree dëgg réeree boo xam ne fitna rek lay nekk ne تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبها قلب أسود مربادا كالكوز أسودا مربادا كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض Yonent bi sallallaahu dafa wax ne fitna yi dañ koy gaaral xol mu joxe ko misaal comme basan bu ñuy ràbb mel ni ay basan yi bant bale yooyu ñuy ràbb xal boo xol boo xam ne nag fitna yooyu te du dara lu may bakkan bi ak bànneexam yi ak yim oote jëm ci xol bu dem ba nga xam ne nàndal nañ ko fitna yooyu yëpp ñu tomb ko tomb ko jur bu lëndëm xol bu ma weddi ñu tomb ko tomb bu leer xol yi mujj mel ni ñaari xol xol bu lëndëm boo xam ne dafay mel ni kopp buñ dëpp nga ko kuñ def bu jëlee ci dara ci lu doon dem ci moom te lu yàqu ba pare ñu dëpp ko xam nga loolu lijjanti ko lu jafe yonentu melal ko ne xol boobu xamatul lu baax bañ a tuuti lu bon lim xam rek mooy li bànneexi bakkanam naan ba màndi xol bi nga xam ne nag dafa leer mu ne fitna dootu ko lor fekk asamaan ak suufam fi bëri na kuy <clears throat> itteewoo ay texte yuy wax ci lu baax dara gënta baax alquran te nit a ngi jàng alquran fekk alquran di gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel na ci mu jël jamono ñoo xam ne da ngeen di xeeb seen bopp bu ngeen leen di gisee ñiy jàng alquran waaye fekk génn nañ ci diine comme fett bi nga xam ne dañ koo fett mu jam lam jam ba këtt dem ne fële joteewu teg loolu daal loolu li ko waral mooy kuy ittewoo xam te ittewoo xol su fiyanke yi nag dañoo jub buur ne nañ dem itteewoo ju xol wuñ ko du may ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo ñu xamal ne ala inna fi jasadi mudgatan ida salaxat salaxa al aljasadu kulluhu wa ida fasada fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb jëmu ji lu mbëng ci boo xam ne bu xewenee jëmu ji yëpp xewen na bu yàqoo jëmm ji yëpp yàqu na te loolu mooy xol xol bu xewén mooy xol bu nangul yàlla jébbalu yàlla jébbalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gëm yàlla laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaahu tabaan li maa bi kenn ci yéen du gëm lu may bànneexi bakkanam dafa dëppoo mel ne xol ba nga ne lu baax fekkee xol nag dana dem ba nga xam ne àgg na ci bëgg lu baax ak bañ lu bon koo xam ne dana àgg ci sangewu mucc loolu tax sufiyanke yi buur jëm ci yàlla waaye ci lépp loo xam ne dafa yéwén seen xol bu ñu leen doon laaj Sufyaan ko mooy ku ci nekk rek waxal na ko waxi boppam wax ne wax nañ Sufyaan ke ba mu dem ci lu ëpp ñaari junne yi wax nañ ko ku nekk ne li mooy Sufyaan ku nekk ne li mooy Sufyaan fekk benn bu ci nekk Sufyaan ke ndax ku nekk dafay seet li nga xam ne nii moom moo ko musal wala lii mooy mujjukaay imaamu suyuti dafa wax ne su fi yàggewu mooy tajridul qalbi lillahi wa ixtiqaaru kulla ma siwaahu bi nisbati ilay mu ne su fi yàggewu mooy sa xol bi nga dem ba wéetal ko mu ñeexal yàlla maanaam bidd nga lépp lu dul yàlla rek bidd nga ko ci xol bidd nga xol bi ci loolu dem nag ba xeeb lépp lu dul yàlla booy xeeb lépp lu dul yàlla la yàlla màggaloo doo ko ci boole xeeb lépp lu dul yàlla la yàlla màggaloo doo ko ci boole lii màggal yàlla doo ko ci boole doo ci boole julli doo ci boole koor doo ci boole asaka doo ci boole aj xanaa nga bokk ci sufiyanke yi ñenn ñi di xasee sufiyanke te seen maanduwaadi la parce que gis mboro nga tànn ña ca gën bala saabu ne ñi ñooy tekkale mbooloo moo tax ñu ne sufiyanke wu baat yi luñ bëri bëri ci leen rek la jëm mooy dëggal wéetal yàlla tabaaraka wa taala dëggal wéetal yàlla ku nekk xam na ne loolu alquran indi na ndax yàlla wax na ne ragal leen yàlla ànd ak dëgg la loolu mënta am te ixlaas amut wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisiina lahu diin moo tax ñu pour jaam yi mën a sell loolu mënta am fekk ne dafa ci lay ci ni daf lay waral am na ay jaam yàlla yu baax yoo xam ne bu demaat ba xam ne dañoo rëy pour faj seen bopp ci rëy googu jaral na leen ñu rek dem marché di anuwaan te am nañ xaalis wàccee bi doon jàpp ne dara la moom lañ doon wàccee noonu bu ko wàccee kan la ñuy màggal ci màgg gi yàlla tabaaraka wa taala ci saxaaba bu ñuy wax Abu Juhayfa te dafa laaj Seydina Ali ne ko ndax am ngeen téere maanaam da ngeen a am téere boo xam ne nii bokkut ak alquran comme yéen àll bi wala naan am ko téere téere yàlla yooyu lañ amee laa kitaabullahi aw fahmun watiyahu rajulun muslim xanaa dégg dégg bu wér boo xam ne yàllaa ko may jullit maanaam gëm yàlla sellal sa xol yàlla may la ay dégg yoo xam ne ni kenn sawu la ko kenn sawut la ko loolu sellal xol dana ko may xol bu koy sellal lépp lu ci mën a wax la ci jiitu mooy farata yi la ci jiitu mooy farata yi naafilaay ñëw yi door a ñëw naafilaay guddi mu ci biiram quraan mu ci biiram tur yàlla yi mu ci biiram imaam sa ruq dafa ne leeri si kar dafay lakk awsaaful abdi dafay lakk ji koy jàmm jàmm man naa bëri wax lool nga toog sedd ba fu mu ne waa ji dafa tuuti fekk dara tey làkk benn ko laaj waaye tur yàlla yi ñuy si kër nooy liggéey ci ñun mooy lakk jikkoy jaam li nga xam ne nii dafa manqué parce que tur yàlla yi am na tur boo xam ne دوح الله مكفر نك يلا يا بس كيالله بقول لي علامة من قال الله دوح الله دوح الله دوح الله دوح الله وفتح نك نلول لي الله تنومنا تريد في أمي وقمنا تعلم رجلين صلاة waye turi daf ci am yo xamne ligey ko daf lay jox jikoy tuwi man nga di sikkar rahmaanu boo nekk nit koo xam ne yow da nga am rahma da nga am yërmaande rahim nga am yërmaande rafa wahaabu ko baax ko mën a maye ko ma man nga ko jikkoo parce que ay jikko la yoo xam may na jaam bi mu man koo def mu ne turi yàlla yi tàngoori turi yàlla yi dafay lakk jikkoy jaam bi jikkoy jaam bi loolu ci juddu mooy jikko yi wàññeeku yi loolu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa xamal nañu bu ñu saxoon ci sikar bi gars yi wax léeg-léeg ñu xool kii ne aras la fanaan yi maanaam fanaan aras waaye moo ko amaloon alaa ñoo ndax yàlla nee na boo ma tuddee ci sa bopp tuddee ci sama bopp tuddee ci mbooloo ma tuddee ci mbooloo mu gën sa mbooloo booy doxee jëm ci man ma ma ma ma ma waaxu booy waaxoo ma daw waaw daw yàlla lu muy firi xam nga ne saal bi moom yàlla kon daw jëm ci yàlla du mooy nga bàyyi saal bi ndax saal ci yàlla boo dawee sa bopp bàyyi ne jaam bi dafay xool dafay dox ci diggante seyroom dafay dox ci diggante jaam bi di xaatir ci jaame ak borome wala nekk borom di boo xalaatee yow ci sa bopp comme jaam jaam dafa mën nga xalaat ci yàlla ku góor bi góor bi dafa mat xam nga boo gisee lu mat ak lu manqué lu mat bi boo ko moomul sax fekkee yaa ngi gis daf lay naw génn rek gis oto boo xam ne oto waa jaay dem la waaye moo la gën a neex am nga xaalis léeg-léeg mooy waral nga laaj yàlla yi fi mu koy jaayee mooy nga daw sa fas matam yi fi ñu koy jëlee mooy nga daw sa manque gi daw sa manque gi mënoo koo am lu may nga topp ndigal yi topp ndigalam yi bàyyi ay tere loolu doo ko defee lu la neex ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indee foofu nga koy jëlee tudd yàlla bokk ci li lay àggal saxaaba bu ñuy wax abi ju xayfata abi xanzala euh, abi rabii xanzala dafa ñëw ci seydina abubakrin siddiq radiallahu anhu ne ko naafaqa xanzala moom boppam la yow ne ko daal naafeq la boppam la yow mu ko damaa seetlu ne bu ñu toogee ci kanam yonent bi sallallahu mu ñuy fàttali ak safara la ci aju dañuy ak ba mel ni annaar ay ay ba mel ni loolu ñu koy gis ñu ngi janoog moom maanaam am nañ yaqin waaye bu ñu delluwaatee ci suñu kër yi dellu ci suñu jabar yi suñuy njaboot yi suñuy alal yi rek ñu fàtte lu bari ci liñ jëloon ci kon seen naa Abubakar ne ko lii de du yow rek nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu dem maanaam seen naa bëgg ñu dem ba ci yonent bi xanzala wax li mu waxaat ku naa fa xanzala yaa rasulallah ne ko xanzala mi daan naa fekk yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam lu tax nga wax loolu maa dàkk قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك وعاصفنا عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حمزة saatu wa saa saatu wa saa saatu wa saa yonent bi ne ko waaw wallaahi salaam bu ngeen bu ngeen mënoon a sax ci ni ngeen di mel ci sama kanam boole koog tim di tudd yàlla waxtu wu nekk kon ne malaaka yi sax dañ leen nuyu ci seen kawlaal yi ak ci seen mbedd yi xanaa léeg-léeg ngeen si kër léeg-léeg ngeen dellu ci famille léeg-léeg ngeen dellu ci business yi waaye bu ngeen saxoo ci lii am lii loolu est-ce que ne ku sax ci tudd yàlla mën ngaa am loolu ku ci saxut nag jàngut lam jàng moo xam lam xamut yépp mu ne bokk ci xam li mu xamul yëpp mu ne bokk ci xam imaamu Sha'raani dafa wax ne xam-xam sharia bala cee nit a mën a sukkandiku pour xam ne xam-xam yi tasawuf ci yëpp yi la bokk faw nit ki géeju ci sharia comme yow géejoo ci sharia tasawuf mën na laa jëriñ te doo xam ni ko defaree doo xam ni muy defaree parce que yow doo docteur xamoo ni ñu aspirin waaye dem nga ba xam aspirin mën naa faj ba ñu nga jël ko sa bopp métti sa bopp bi doon nit koo xam ne moo feebar mu wér ko ne ko dama feebar mooy ne xolam bi dama feebar te wér na ko ne xolam dama ñu jox ko muy sikar gis na mu ngi yow ma suus tudd yàlla boo julee baaqiyaat saalihaat bala nga koo def tudd naa ak kee am lu mos ca lam leen sikkar mosuloo ko nga ne amul boo demut nag yow mosoo bëggoo mos tim am na ci duma te ku téye ci sharia bi em ci dama ndax saxaaba ñëw na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko luy lislaam mu wax ko xadis jàng ci saxee muslim mu wax ko ponk lislaam yi mu ne ko duma ci yokk dara duma ci wàññi dara ba waa ji dëddoo yonent bi ne aflaha in sadaq waa ji de li wax fekkee dëgg la man tamit maanaam du yokk waaye du wàññi waaye yow mi nga xam ne xam xamoo kañ nga wàññi yow xamoo kañ nga wàññi nga ne naa def ay naafila yiw pour yokkee ko suma crédit bi ca yàlla dëgg-dëgg loolu dara na lu bàkkaat te dana faar baax yàlla tabaaraka wa moo wax ci xadiisu kursi ne li ko gënal ci li jaam bi sàkk koo jegeñ loo mooy farata yi waaye ne suma jaam bi du dëñ di ma sàkk koo jegeñ bi ci naafilaay xiw ba ma bu ma ko bëggee rek nekk di loxoom yi muy lu mu dóor yi mu dox mu sotti nopp yi muy déggee lu mu dégg mu wér làmmiñ yi lu mu ñaan mu nangu yàllaa ci teg ne bu ma ñaanee ma may ko bu muslee mu musloo ma musal su fi ànkee yi foofu rek lañ maanaam naafilaay yi gannaaw boo xamee def nañ suñ farata yi ñee nañ góorgóorlu ci naafilaay yi jotaay bii ku nekk xam nañ kenn forcé dëgg-dëgg bañ commencé ba léegi jàng nañ alxuraan tagg bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam giseeg suñuy ministre ñi nga xam ne ñoo amee suñu mbiri àddina dajeeg suñuy ilimaan soppe yi dajee defuñ fi góor ñi jaxasoo ñu jigéen ñi jigéen ñaa ngi nii góor ñaa ngi ne le benn caaxaan amul li lu ci ne dara nekku ci lii waaye dara nekku tim jaam bi jël kurusam di wax laa dara nekkul ci jaam bi jël kurusam di wax astaghfirullah suba ngoon dara nekkul ci jaam bi jël kurusam di wax salaatu ala nabi suba ngoon moo ko coobareel boppam di ko def moom kenn te kenn sant ko ko kenn du ko wax dara boo demee nag ba am sëriñ boo xam ne óolu nga ne sëriñ bii moom dëgg dëgg sëriñ bu xamee àlla la noo ko xamee xool nga jumuwaay xool nga ni defee xool nga ni muy bàyyee tere yàlla yi xool nga ni mu toppee ndigal yàlla yi xool nga ñi ko toppoon te niñ baaxee nga topp ci yoon boobu pour baax loolu ci nekk loo xam ne boo ko defoon yow te jëleewoo ko ci benn sëriñ dara nekku ci dem na jëlee ko ci Cheikh Ahmed Tidiane balaa di jaaxal ñeneen ñi ne waaw ñu ne moom ci yonent bi la ko jëlee si kat ñëpp ci yonent bi lañ ko jël astafurlah ñëpp a ko jël ci yonent bi a ko jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a ko jël ci yonent bi waaye yàlla am na ak jagleem ñu muy jagleel ay jaamam yoo xam ne imam bi Shahraani dafa wax ne yooni subiyaan xam-xam la boo xam ne yàllaa ko taal ci xoli jaam yi nga xam ne bi seen xol yi leeree ci jëfee alquran ak sunna yalla fettaxal leer gogu ci seen xol bañ jëlee ca lañ ca jëlee lañ ca jëlee képp ku ko def jëlee ca ñoom lañ amoon bañ jëfandikoo bi mu ne ñu jëlee ci uluman wa adaban wa asraran wa xaqaiqa تعجز الألسن عنها أي دق دق يو قمنا أي مود يو قمنا لا مني دنا يلوت جوا من نكي برم خم قمي فقيه قمنا بنت جبنيكو سين خم خم ci jëfandikoo li leen liñ xam yàlla xamal leen ci biir lañ xamoon yàlla xamal leen leneen bañ tëral ñu lii mooy waajibaat lii mooy makruhaat lii mooy faraid lii mooy nangam saxaaba yi bàyyi ñu ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jëfee li nga xam yàlla xamal la loo xamutoon su dee ne ni mu amee ci fiq nga xam ne daf ñuy oo ci ni ñuy jëflante yàlla ci suñ cër yi naka la ñuy naka la ñuy naka la joxe naka la ñuy ajee ne daf yàlla def loolu xaarul benn sëriñ muy ñëw di ñu ci yokkal daal xaarul benn sëriñ tin muy ñëw pour wàññi ñu daal Cheikh Ibrahima nee bi xukmin jadidin ne la léegi nag ne julli leen waaye yéen samay taalibe yéen moom bu leen julli te dara du leen ci fekk wala bu leen koor dara du leen ci fekk bu leen aj dara du leen ci fekk bu leen teg lu xaram dara du leen ci fekk bu leen neexee ngeen jàll dara du leen ci fekk bu leen neexee ngeen naan sàngara dara du leen ci fekk boo dégg xam ne lii ci seytaan ku koy def ci askan bu bay sëriñ bu mën a doon kooku lu muy wax noonu moom la concerné concerné sëriñ dégg benn sëriñ àddina yëpp nga gis benn xale bu ndaw boo xam ne dafa askanu ci yoonam te xamagul sax ni yoon bi mu def laa nga ne lii nag mooy diw Cheikh Tidiane radiallahu nga xam taalibe bu mel ni Seyd Ibrahima Raya nga ne dem na ba nekk cheikhul islam ci Tunis nga dem xam taalibe bu mel ni si Ahmed Sukeri yu doonte gannaawam la ñëw Sidi Arabul Nisaa dem ba xam talibé bu melni al alxaaj abdullah yi dem ba xam talibé bu melni sheikh ahmed Ahmad bu melni ni si alxaaj Maalik demet duñ ay misal lañ ay jinné yu mel non ñoo ci nek nga bon lo yoon woowu ngir ben ben wax boo bo xamné mom ci xas wàllu yàlla yi rek ci la yaakaaree di fay ak weer te jaam baax yi wax ma la xas wàllu yàlla de waaye bu ñu kasoon benn mala buy dem rek dana yedd ak seet ay seet nu Mariama mbaam xuux moo ko romb mu ne ko jàllal ci jàmm waa ji ne ko mbaam xuux ngay wax mu ne ko damaa bañ a wax ñaaw ku bañ wax ñaaw ak ngay dem ba min wax ju ñaaw ci sa morom yi ne ngay jullit muy jullit mooy morom bi waaye bu leen morom ci martaba ndax li ko yàlla jaral jaralu la li mu defaral yàlla defaroo ko li mu jubale jubaleewul ko yonent bi bi an yahdi allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min xawri naam sa loxo moo gën alali àddina yépp nga gis koo xam ne ay million la yàlla jubal ci loxoom kooku boo ko bëggutoon sax war ngaa rus a wane ne bëggoo rawatina ngay wane ne yow da ngaa bëgg lislaam dëgg-dëgg lislaam koo Islam bëggal lislaam ay mbërëm pour lislaam ko bëgg bëggal lislaam ay mbërëm làmb yi ñu ko bëgg bëgg nañ mbër football bii ñu ko bëgg bëgg nañ ñoom ci xam ndax yu baax lay def moo tax joxe misaal Sadio Mané rek laa football nag neexu ma football man neexu ma man fay la neexu ma ci football neexu ma waaye dama ko ne bugg ko la di ku bëgg yàlla bëggal yàlla ñu bëgg soo bëgg nañ ko fekk ñu bëgg fecc bëgg nañ fecc fekk ñu bëgg yàlla bëgg la yàlla lislaam bii man te wér te bëggoo yonent bi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baare dalaan am benn xutba defoon bi ci wax yar tarbiya bu kenn dem ku soree sori mu ne moom ni mu koy firee mooy taxliisul nafsi min kulli maa si wallaahi tabaaraka wa taala wa taslimuha lillaahi fi zaahir wal baatin mooy fexe ba tàggale bakkan bi ak lépp lu dul yàlla jébbal ko yàlla ci lu feeñ ak ci lu la mu nag ne waaye yar boobu nag yar mu commencé ko ci xale ne waajur wi na tànn jabot na tànn jabar ju baax ñu lay wax ne tànnal jabar ju baax mooy yooyu baaxal da koo baaxut tamit di dem tànn jabar ju baax bu yomb la ñu bëree ngi tawat fekk seen bopp lañ war tawat am na kàccoor ba Firawn yàlla may ko bu baax ba mel ni Asiya waaye bu baax ba mel ni noonu yàlla may ko jabar ju mel ni jabar waaye li gën a bëri mooy ñu baax ñi bu am jabar bu baax baaxal yow di leen ci baax te yow mën ngaa jël jabar bu baax sax yow nga yàqu fekkee baax bàyyi na yàbbi nga ut utal doom yi wàññi bu baax ndax mooy école bu njëkk juddoo rek fekk njaayam di wax yu baax lu baax la bu jugee rek yaayam luy saaga baax yar ko ci diine mu xam ne jullit la jàngaloo ko alquran xamal ko sha'airul islam mu naan bés bu ma demee aj ay bu ma màggee or bu ma naa amee waaw yar ko ci loolu mu bëgg loolu xamal ko xam-xami diine bu ma nee dem ba wëttu alquran dimbale ko mu def bu ma nee xam xam-xami alquran ak lim laaj mu ne dimbale ko mu def xamal ko bakkan bi ay jaaruwaayam ndax mu mën koo moytu xamal ko tudd yàlla te xam ne alquran ci tudd yàlla la bëggloo ko yonent bi sallallahu wa sallam màggal ko mu xam màggal yonent bi màggal yonent yëpp xam tim yonent bi ni ko yàlla màggalee ci biir yonent yëpp mu xam ne moo ci gën a màgg mooy yonent bu mujj yonent dootu ñëw gannaaw bëggloo ko yonent bi bëggloo ko saxaaba yonent bi te loolu mooy koy bëggloo diine ji bu ko bëggee topp ko dana yomb xam ne boroom xam-xam yi jottalikat lañ sëriñ si tegtalkat lañ nit a ngi ànd ak sëriñ jàngul masala bi fi mu jugee waaye du xew lu nekk mu xam lu baax lañ ca war a ndax ñii la ko doon كمان كو لك إن كنتم تحبون لك فاتبعوني يحببكم الله لك يا الله خير لك بعدين بقي يا الله توكل لك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله بقي بالله سني بكا باي من لك بلاية توجو بنت بلاية مغني ما يتوبين أنتم من لك أمنا بنداو أمنا بمك أم ويوم نار يب إلهما صلاح وفلاح بم من تدتنا الولاية ولاية الله ولاية حق الله بنت من أدرك بايننا فلاح لا صلاح جبل أيوة يقال خصال أهل العلم تنفذ ومن جمع الخصال الفساتة ويجمعها صلاحه فمن تعدى مذاهبه فقد جمع الفساد واجنا هنا دنيي وخنا جيكوي بروم خام خام تي نيوم بو نوخي بروم خام خام موي جيبي سان خام خام موي انما يخشى الله من عباده العلماء yàlla boo waxee ne ñii ragal yàlla ci jaam mooy borom xam-xam yi rek ñuy ragal yàlla ci jaam mooy borom xam-xam yi yàlla moo tax bàyyi ne xam-xam bu dul xam xam métier xam-xam métier xam-xam yi dëgg mooy xam-xam bi àggale jàmm ci yàlla waaye ji mu ne waykat bi mu ne dañuy wax ne jikkoy borom xam-xam yi junne la waaye junnee jikko yooyu ku ko boole rek da nga nekk sax nga ne nu koy boole mu ne wa wa ijmaa wa mu ne njub njub moo koy boole xewet bi moo koy boole sell moo koy boole ndax ku jéggi sell rek moom yàqu wilaaya lu màgg màgg buggeen nañ ko ak xel buggeen na jub buggeen na mbaax ci biir jàngale boobu mu mel da ngaa laaj bàyyi nga ko wax wax ci xale ko ci islam waaye man mu dem ba mag nag wala ku ñëwoon sax jéego ni ba tey dañ ko xamal tawxiid xamal ko sharia xamal ko jaamu yàlla ci farata yi xamal ko naafile yu baax yi xamal ko ne yooyu yépp nag dara du ci baax lu may mu ànd ak sellal ñaar yàlla ànd ak nag ñett jikko yu bëgg di ko wax ne ku bëgg jëriñu ci yoon yi tariqa tijaani foo nga jikkoo mooy shuhudul minnati ak tafwiitu ak xusnu zanni ci yàlla dafa njort ci jaam yàlla jooyal mbir yëpp sa mbir yëpp nga jooyal ko yàlla ak sa jëf ji lu baax baax nga xam ne nga nga seetu may yàlla yi nga xam ne yàllaa ko maye waaye yow dëgg-dëgg mën yow manoma bu fekkee dundale la nit ñi taggee diw ak a baax ak a mën a jox te mu wér la ne yow ci sa bopp yow sa bopp ji amul kon yow na kon ki am moo def askan la ko mu minati mooy nga delluwaat ko ko moom ne ko man aw ma man yow yaa man yaa am yaa def boo ko defee sa jaamu yàlla yi lu mu rafet rafet doo xonq waaye ju fajar njëm nga jàng nga alxuraan waaye jaam boo xamul ndax loolu dem na ko rek nga ne góobu daal te nit ñi ñuy def ci bu baax yépp ñëw dina ko koo dëkk ak nag muy dem ci jumaa ji da xam ne dem na jumaa ji wala demul jumaa ji waaye koy dëkk muy jàng alquran ndax waxtu muy jang alquran dana la wax ne kaay maa ngi jàng alquran wala muy tudd yàlla ndax waxtu buy tudd yàlla dana la wax ne ñëwal maa ngi tudd yàlla ndax bu muy dundale waxtu bu koy def mu lay wax ne ñëwal maa ngi def yow sa wàññeeku yi rek nga xam waaye yu nit ñi ñu ci bëri koo wut ñu dañ koo dégg ñu def ko lu tax su dee yi mën a baaxal la ci seen yar yi la bokk loolu ci seen yar yi ko waaye bàyyi mu ne jaam rek ñu ko yaree ci jaaruwaay yooyu yëpp mu jaar tàggat ko ci jaamu yàlla te waxtu wu nekk daf lay xamal ne wal lu ba'da itqaani faraa'id loolu yëpp nag li ma lay mën a digal ba ci dem mu jàng leetar bi nga digal doon xaayatullaahi ngi demal génneel kaw ni bi ci sa xol génneel sa xol ci kaw ni bi bul ànd ak kenn lu may ñi nga xam ne sa jaami borom bi lañ te borom boobu mu ngi seeti sa mbir yi bari ngoon bëri leen julli ci yonent bi bëri leen jàng alquran bari leen eh, ñaan yàlla ñaanalal sa bopp ñaanalal say waajur ñaanalal mbokk jullit ñi ñaanalal wax na ba ne ko ñaanalal sëriñ si dem na ba ci biir mu ne ko li ma lay wax ci baax lii yëpp nag baax da itqaanil faraa'id wal kullu tabaun li faraa'id lii yëpp gannaaw boo xéwénalee farata yi naa ko yow ne def farata waaye damay jël wir do pour yokk ko ci sama yu baax yi te yow mënoo julli julli juróom déggoo jàngale sëriñ bi waxuma la bul jël wir do de waaye xamal ne sa wir do yi mu lay wax ne charti yi mooy da ngay def farata yi ba pare te da ngaa farata yi ba pare boo tax nga war cee teg wir do yi waaye foo jant bi fekk julliwoo benn julli nga toog nag ne da ngay wérdoo wala buñ la gis yaa ngi téye kurus loolu am am na lu ñu nga xam ne kon suñu yàgg yi bu ñuy coobaree oo def naa fi laa yiw dafa fekk ñu jiital seen fàtte dafa fekk ñu jiital seen fàtte boo amee loon boo rek ñoo di ko may xaalis mooy dëdd lu ne tam No me gusta esto de Google ni me chido. bàyyi mu ne bu jaam bi saxee ci loolu sax ci tudd yàlla suba ngoon dana dem ba àgg ci teewlu yàlla teewlu boo xam ne insaan lépp lu ngeen di oote loolu yàlla daal nee na nga ne ku wax loolu luñ ko war a wax bàyyi na ko maa ngi lay wax ne wa iyaaka wal ixlaala bi shariati wa sunnati adaban ma allahi wa muhammad wa maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye nag dangaa jeex ci yàlla bàyyi ne maa ngi lay moytaliku loo nag sànq sànq dara ci sharia wala sànq dara ci sunna maa ngi lay moytandikuloo loolu lu tax da war a sàmm sharia ngir tegginoog yàlla sàmm sunna ngir tegginoog yoon ci yàlla Muhammad sallallahu ba pare moytandiku sori gannaaw jege moytandiku rékkeeku gannaaw xam nga xam ne wax fu nekk payem yàlla bi sa xaal daal bu taalibi bi dëggoo bu fekkee ne la nekk ut na ba àgg ne xam na dara mos na dara ci xam-xami gaa yi bàyyi mu ne lisaane xaalam dafa war di wax ne hal min mazid ndax man danaa am ndollal ndollal mën naa am mu ne pay yàlla koy am nañ ndoll yàllaa ngay wax ne am na ndoll yàllaa ngay wax ne am na ndoll ndax anna ilaa rabbika demuwaay bi fa yàlla waaw comme yàlla du jeex comme yàlla du jeex ku jëm ci yàlla fan la war a àgg ñu ne kii nag daf doon ut ba tey jii am na moom moo tax tey yu gars yi doon def ci yu baax yëpp dootu ko def koo gis mu ndax ut yàlla am yàlla dëgg la yàlla ku bëgg am ku dëgg ci ut ko da nga ko fekk ni gën laa jege nga di ko ut mooy ne daan la jege ba doo ko ut moo tax sëriñ si ñu ne dañuy dañuy foog sax ne dañuy wax sax ne ndekk dëggu daal mooy sëriñ waaye bu fekkoon ne am na fu jaam bi di àgg ci am yàlla dafay dëpp kon dëgg dëgg yoon ci àll Muhammad dañ ñu nettali ne am na fu mu àggoon dëpp fu àggoon ba bàyyi julli fu mu àggoon ba bàyyi koor yi mu jël dundam ñu ngi koy xaar ci julli mu xëm waaj ñu sotti ko ndox mu xiqi waajaat xëm ñu sotti ko ndox mu jub ñu ngi koy téye daan jaar yi watatu ngi jëm ci noonu la bëggee yàlla ku bëgg yàlla doo doy ci yàlla noo gën a màndee gën a mar noo gën a màndee gën a mar kon bàyyi ne jàmm bi tegginoo ak yàlla topp sharia ngi tegginoo ak yàlla teggi topp sunna ngi toog tegginu gi ñu waxoon na moom liy tegtale ñoo gën a màndee gën a moom ashrabu min saxbi mahabati saaqiyan wala sukru yulhi bal mu dégg sa xaal دين يا رسول النبي الهاشمي التي متى الذي متى تنفس في قلبي استبان دينه يدهش الأقطاب يوما يمشي waaye ne bu xut bi gëlëmoon gëlëmee ngir feeñ waaye bu yàlla feeñ ba xamatul li teg ni fi bàyyi na ma ommat leen ndax moom ay aktar la ñu teew aqulhum li sax wi li sidaatina maa di man ci sama koole bi ndax leer yi du bëri ba normal ngir sama tatak màndi gi may naan ci naan ak xooleeg mbëggeel ba pare ci naan naan ak ci పొగలే ఎప్పటికేం లేదు కదా వాళ్ళు కారణమే కదా nanak xoolee mbëggeel wa ashrabu min saxwin mahabbati saaqiin may naan ci naanak xoolee mbëggeel ba pare nag di ci nandali wala sukkur yu nii bët bu di Mustafa kon ëdëb ma allah ëdëb مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم من الأدب مع الله مع حسن الصحبة مع الله تجن كسرفة الكاندو أجيال بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مدى التعظيم والإجلال والحياة سيقتو ياب يفين أك ينبو نقوي تقبل شلو منغو مقل يالله أكتدلكو أغروس يالله أغروس يالله bàyyi dafa wax ne mu ne shibli yu dafa wax ne maasiyatun irtakabat al abd irtakaba al abd sawaataaw inbukat mun a ñaawtee boo xam ne jaam bi daf koo def mun a ñaaw ne jéeg doonte baaxale na loolu mooy jaam buy teewlu borom yow boo xamee ne sa xam ngi yàlla la sa man ngi yàlla la sa dund ngi yàlla la sa naan ngi yàlla la nga naan lekk ba suur naan ba fem guddi gi yëpp nag nga jeexalee ko ci lu naqat yàlla ne si lii nee na ñaawteef boo xam ne yaa ngi koy def te ci kanam buur bi rekk nga ko mën defee ndax mënoo def yàlla nekk mu ne ñaaw na doonte baale moom bàyyi mu ne ndax lu mënta teew rek jàmm bi suturaam uñeeku na ci kanam buur bu baax boobu dama ciy joxe misaal toujours ma bu fekkee da ngaa xëy léegi dem ci banque bi wala feneen rek am soxla bu la jaaxal nga xëy sa nit mu defal la ko mu dëpp ñëw këram fekk la fa ngay caaxaan bu la baalee sax gàcce kanam waaye ñàkk teewlu yàlla rek moo tax jaam yi ñëwee waaye bu ne wéeree li ngay def mënoo koo def lu may ci kanam duur boobu nga xam ne li nga xam yépp moo la ko may dëgg-dëgg bu boobaa ñaaw na jéeg doonte baale na tegginu ak yàlla ci sa ànd ak moom ci màggal ko ak rus ko waaye ji newoon na rus naa yàlla yam ci may ko loolu li wax du rus rus an taxbalal batna wa maa xawaa wa rasa wa maa wama wama wama wama wara mooy nga wëttu sa bopp bi ak la ca nekk sa biir bi ak la ca nekk Ibn Qayyim ne tegginu googu ak yàlla dafa am ay charte laaj na ñetti mbir jaam xam yàlla ci turam jaam xam ko ci melam xam ko ci diineem xam ko ci shari'am xam ko ci lim bañ ak lim bëgg am bakkan boo xam ne ci dafa pare xamu mais dafay nangu dëgg muy xam muy jëf muy xam am na ay xeet doomu teggin mooy nga wëttu sa jëflanteeg yàlla ci dara mu koy wàññi njàpp wëttu sa xol bi muy des ci jëm ci leneen lu may moom wëttu sa bëgg-bëgg yi muy bëgg lu koy mel bàyyi bind na taalibe leetar moom ci commencement yi saa yi génneel mbindéef ku dul yàlla génnee ci sa jëflante yàlla te xam ne sa bakkan bi keneen te feneen mu ne ku xam keneen mënoo génne keneen kon ñu jàmm bi di def ba àgg ci ixlaas mooy dana dem bu fëkk lu dul yàlla maanaam xam ba àgg ci xamatoo ko sax fàtte ko ba àgg ci xamatoo ko fàtte bàyyi mu ne jaam bi bu demee ba àgg ci xam boromam wéetal boromam mu ne faw gannaaw bu mu toggee bakkanam topp ndigal yi ngir tegginoog yàlla teggi topp ndigal yi ngir tegginoog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay da ni mën naa dem ba àgg ci togg ba kanam tegginoog yàlla ci lépp lu gis ci loolu nag mu ne ci ngay amee wàccee mbir yi yëpp wàccuwaay waaye bu loolu amut sa dërëm bi ak xeer bi ñoo am ñoo am àtte sa kayit yi ñaar téeméer bi ak kayitu journal bi kayit kayit la waaye tegginoog feeñuwaay yàlla yi mooy tax nga ne ah ñaar téeméer ñaar téeméer kayit bii kayit rek la buur bi buur la kii du buur mag la kii kilifa la nga wàccee jaam yi seeni wàccuwaay loolu mooy xikma bu dul loolu yépp ci xooli bët yi အဲ့ကြမယ်လို့လို့ရောက်ဘင်းကခမ်းနဲ့လက်လက်ချီဘင်းကခမ်းနဲ့မမိတ်ပဒီချီ by stay kanem nena jambi na góorgóorlu ci man ba kanam bi ba nga xam ba kanam du ko nax di ko wax ne ko yow ne àgg nga ci ma xaam boo xam ne yow fu ne nii soxlaatoo soxlaatoo topp yàlla من بغير العبد حتى لا تحدثه نفسه بأنه وصل إلى مقام يغني عن العمل تعلم لي جامد والموي تعلم لي موي طيب، سرين لي المقدم لي موي شيخي جاي وعلي بعد أن يقول يقول لو بكر نبي ممكن نخلوك نقول تاني أنا يو أعلم كم كم يو تاني فيني سولاتو سولاتو soxlaatoo yow ku ñàkk bëgg yàlla rek la waaye ñi am xaalis ci banque bi tey ki leen gën a bëgg xaalis bi yow te xaalis bi duñ ko gis mukk ndax moomu rek ko moom mi nga ci lekk mi nga ci rappal li mu ci joxe moom nga moom li ci banque bi xol bee ko ba xam koy ba wax koy sallallahu alayhi des na yi ana kan ci la li alal yi jàmbur gën a alalam ñun ñëpp ñu ne ko ñun suñ alal la ñu gën a alal yi jàmbur mu ne sa alal mooy li nga lekk ba mu rees li nga sol ba mu ràpp ak li nga joxe ci yoon yàlla alal yi jàmbur mooy li nga bàyyi ci li nga xam ne alal yi la bëggoo koo jeexal ndax da nga koo bëgg yàlla may na nit ñi excuse ndax moo laayal nit ñi jàmmi ne ko toxi bu leen maa la ko bon jëmmal da ngay bëgg alal bëgg bu bëri vraiment yi firi nañ koy nawale xubbil xayr la ba tey xayr boobu xaalis dañ ko tuddee loolu nit ñi bëgg duñ ci doyal nga bëgg yàlla nit ñi ne da àgg boo xam ne yow da doyal tey da ngaa desee ko yàlla bu ko doyal la bàyyi wax ne waxtu bu nekk daal sa lisaanu xaal may wax ne hal min mazidin ndax ndollal am na waaye lisaani xaal tey yàlla bi mën ngay wax ne kullu shay'in maziid yoon wi التصوف عبادة وزهادة ومعرفة ومن خلا من واحد من هذا فهو مدعي عارف لا جائز kon tasawuf oote ko moo gën a yomb oote ak sufiyankewu moo gën a yomb nekk ab sufiyanke moo gën a yomb nekk ab sufiyaan waaye mooy ku gëm yàlla ku bëgg yàlla ku àndoo ngir yàlla àndoo ngay tëdd yi tudd yàlla subhaanahu wa bëgg alxuraan bëgg sunnat Muhammadin sallallahu alayhi taxawal wareef yi doo seete la nga coobare lii yàlla moo la ko waral ngeen la bala ngaa wax ne yaa ci yokk sëy baax a baax te kenn bañu ko ko xalul xeyal am nga ko tudde comme lu baax muy texe waaye farata yi ñu gën a baax lépp nañ yéwénal farata nañ yéwénal julli yi nañ yéwénal oor yi nañ yéwénal asaka yi war nañ yéwénal aj màkk ku war nañ doon cee teg la ngay coobaree ci dundale la ngay ci naafila la ngay coobaree ci jàng alxuraan la ngay coobaree ci say awraat yi nga xam ne yaa ko def coobaree ko subaa ngoon ngir àgg ci ngërmaane yàlla danañ yàlla dimbale li bëgg ak ci lépp gërëm yàlla fekk nekk ci lim ñi digal lim ñi fekk ci ñi yàlla jublu ci dem baaxam bi ànd ak

loolu yëpp ñu ngi koy oyofal la gis nañ ne am na jaam yoo xam ne dañoo amoon benn soxla rek tax ñu jël benn tur di ci ñaan yàlla ba mos ci neexaayi tudd yàlla ba soxla boobu faju ñu continuer di tudd yàlla danañ dem ba àgg sax da nga tudd yàlla ba pare ba fekkee loolu sax te yàlla ne man shagalahu zikri an mas'alati ataytu afdala naqatin sa'ir képp koo xam ne tudduma man yàlla ndax laa soxlaa mu lis ñaan ma ma jox la lu gën li may jox ñi may ñaan waaye ñaan bi eh, jaamu la ndax dafay tegtale ne dafay tegtale gëm yàlla yàlla man na ci buntu boobu ci ma la def ñi ay jaani yërmaande dana yàlla dana yàlla def jàmm ci Gambie def ci Sénégal def ci Afrique def ko ci alam islam yëpp gan ñëpp yàlla ñu dellu ci jàmm beneen yoon Cheikh Ousmane ñu ngi lay ndokkeel di ndaw yi nga xam ne ñu ngi ànd ak yow liggéey bi ak mag ndax liggéey la boo xam ne benn nit ko def ñaari nit ko bu ñu gisee lii dañ xam ne bàyyi bu ñu taxaw fii am na koo xam ne moo ko joxe waaye am na koo xam ne moo ko teg am na koo xam ne moo ubbi kër am na koo xam ne moo ubbi oto am na koo xam ne moo teg taabal ji am na koo xam ne moo defar rajo bi am na koo xam ne moo toppatoo saal bi ku nekk rek yal na yàlla fay képp ci yëngatu def yaatuwaayu am-amam ak yaatuwaayu mbaaxam yal yàlla jublu ñu ak yéen ñëpp xam ne du nekk rek wax ભાઈચારી વિકસિત અને અમે લોકસુંબુગે ಅನ್ನುವ ಅಂಶ લોકસુંબુગે ચેરજિયા લોકસુંબુગે ચિંતા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ લોકસુંબુગે મોયા લોકસુંબુગે સુબીર યશ تبقى الجيل يا يا يا يا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على خاتم النبي ناصر الحق المحقق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الالتزام العظيم فلا تنفذنا بها اجابه عينك في انفسنا وفي اعمالنا وذرياتنا واصحابنا وخدامنا واحبابنا وانصارنا من حضر من جميع منا وزدنا وارفعنا ودافعنا واحفظنا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 قديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى